bës cloche de notification bi aimé vidéo bi partager commentaire lol dina ci am solo dina tax contenu bu bes bu ñu nga dal di ci mëna jot mo ngi nonu Macky Sall carte d'une conférence de Columbia Université nek nak lo xamné dat né doy war lo dinañ ci ñëw ak jangat yu am solo yi nga xamné nak nag dina ko ci def andi ci ak Médine Diop patriote mom Macky Sall comme ni ñu koy waxe dafa melni ne top ba léegi nag ko gannaaw fële sa Maroc leneen nag daal nay xewat ci fële sa Colombie gannaaw confrance boo xam ne doon nañ ko amal naroon ko se invité moom Macky Sall ginnaaw bi ñu xamee ne nag moom mii nag dafa def ay jëf yoo xam ne daal si réewam moom jiite woon tax na daal ñu daal di koy mujj écarté di si ñëw ak analyse bu ama am solo bi nga xam ne nag des na ko si amal bu leen fàtte abonné bés ko la notification bi jaa jëf. waaw mbokk yi ma ne Macky Sall conférence bu mu waroon def benn conférence boo xam ne. daf ko waroon def ci Columbia ci benn université waaye ku mel ne Macky Sall lim def ci Sénégal dafa yëllawul dafa yëllawul mu def li mu def ba pare ñu koy bàyyi mu nekk ci àdduna bi di dox soxlaam loolu munta nekk wax nañ leen ko munta nekk waxoon nañ leen ne waxuma sax ci àdduna waaye même laaxira bu fa demee dana fa fekk ñu taxaw di ko wan ne ko tooñ ngañ loolu wax nañ ko fii xale yaa nga fa toog di ko xaar barzax bu fa demee fekk fa xale ñu toog di ko xaar kon ku mel noonu munta def li mu def ci dooley Sénégal wàññi ko nun ñuy ay sénégalais mu bëgg a topp ci dëkk bi di taxawaalu mel ne ko am benn mérite te mérite am mooy xaar ba xut kër bi taxaw ñu woo ko tëj ko kaso comme nam daan toroxale nit ñi loolu moo yàlla si moom loolu moo waral mbokk yi muy faare fóoru ba war di di muus muuslu di muus muuslu mel ni ku deful dara te lim defoon yàggul na gën daaw la woon yàggul yàggul matagul saxat wax naa leen ci at yee passé daaw defe naa wala daaw jéeg ne leen bi mu bëggee wàcc xam ne lii mu xamoon na ni lii mu man naa moom xamoon na loolu moo waral loolu ngeen gisoon mu jël benn société pour ñu defal ko benn publicité pour rafetal deram rafetal deram yéen a ngi koy fàttaliku mu jël ay moto ay ay bicyclette benn société un milliard franc CFA la leen fayoon américain yéen a koy fàttaliku pour gars yi di ko jaayal immense ndax lii bu ko bëggee def tey mu mën a mais xamoon nañ ne loola du man a nekk ndax li mu doon def kenn sant koon moo ko tayoon di ko def comme moo ko tayoon di ko def nag ci dooley Sénégal ma ne comme moo ko tayoon di ko def ci dooley Sénégal gor yépp mu tëñ leen toroxal leen yàq réew mi yàq jukku yi wane ñàkk jom wane ñàkk ngor wor wor wor wor wor nag goo xam ne ñépp a ko gis wor mooy dama wax ne ki leen waxoon ne ki leen waxoon ne élection présidentielle dañu gis ne maanaam mbirum màndaa dafay indi problème ba ma limité ko dem ci sëñ Sidi Muxtaar yal na yàlla yéen ko dem ci kilifa yi mu fi jamonte bi doo ko tox wax ak ñoom campagne leen mais kooku moo wàññeeku naan nañ ma ñaan ci njekk amul lu may tee bokka ak kenn mënu tee bokk ak lu ne mu wax lu ne mu wax ba xëy sax dàq fi ay élection ki la waxoon ne ñaari mandat mënu ko romb dàq na fi sax ay élection kon ku mel noonu duñu nangu nun benn yoon benn yoon benn wax naa leen ko fii nee naa leen même assemblée bii di ñëw le 17 incha allah bu ngeen néewee doole waaye waay waay ñu wax leen ñu ko rek wax leen ñu ko ñu ñëw def comme néew <laughs> bu ngeen néewee doole yéen Sénégal ci Macky Sall maanaam ngeen am vergogne wala kersa ci moom wax leen nu ko nun ndax nun ñoo xam xaqeexatam li mu def Sénégal parce que nun ñoo njëkk a xeex ak Macky Sall wallahi nu 2019 ñun ñoo njëkk a contre Macky xam ngeen ku baax a baax Diaspora amul fenn fu mu gagné parce que dëkk yiñ ñu nekk xam nañ ne ni muy doxe ak ni Sénégal du doxe du benn dëkk buy dox du dox ni Sénégal di doxe loolu moo waraloon diaspora bi jaar deux mille dix-neuf Macky Sall dañ ko fay gañe leer na wala leerul kon kon tax ma ne leen li mu doon def ci Sénégal am na ci la Mouhamadou Bassirou daan wax dama rek daal yàgg naa ko wax naan moo dal Sénégal yi ndax wa min suddati zuhuri Mouhamadou Bassirou wax ne zuhuri xafaaw nit bu ko jégee bopp du ko gis loolu moo waraloon Macky Sall doon def waaye nun ñu ci àll bi xamoon nañ bu baax a baax lañ doon def alhamdulilah Sénégal yi mujj nañ xam ko <laughs> mujj nañ xam ko ndax li mu ni ñu ko toroxale waxoon naa ne du Amadou Ba lañ toroxal mais moom lañ toroxal ala kulli xaal toroxtaan boobu day day continuer day continuer ba buy dem rëbës incha allah te loolu mooy suñu liggéey lañ koy defee rek wax nañ leen mooy haute cour bii nga xam ne moo war a taxaw te moom xam na ne xam na ne moo ma tax moo tax moom xam na ko loolu moo waral ngeen gis mu def tëddali si pour boppam pour sauver boppam waaye kii leen waxoon ne mbokk yi kii leen waxoon ne man élection sama yónneeku ci damay dem balaa élection ci six mois mu wàññi ku bëgg a nekk tête de liste xam ngeen am na lu tax bu ngeen lu ngeen dof dof dof dof xam ngeen loolu am na lu tax la tax nag mooy xam na ne haute cour bi dana am te kenn du atte kudul moom nu mënuñoo atte kenn nit te atte te kooku tudd ndax lu fi mën a am ci loxoom la dem la del ndax moom mooy ki nga xam ne moo doon gardien de la constitution dëgg loolu dëgg moom moo giñoon ci constitution da koy garder da koy garder kon bu ñu bëggoon a lijjanti tey ba euh, armo yañ jëndoon ca pale ba fokk turam dana ca génn fina euh, kayit yi nga xam ne maanaam su ma euh, nu ma ko mën a waxee maanaam rapport yi nga xam ne dañ ko doon falsifié barki démb yéen a ngi dégg bi président Sonko waxee amul jom parce que waxoon naa ne min fii leen Macky Sall bu amoon jom wala moom ngor li muy wax yàgg naa ko wax bu fekkoone li Sonko wax du dëgg waxoon naa leen Amadou Ba moo koy weddi ولا كملني عبد الله جاود جال نيوكاي ويت ولا كملني مصطفى با ني نيوكاي ويت داخ ني نيو جانغ فينانس واخون نالي لولا وارال مكسال بي موت كانديدات داخ في كوندا كو جانغ فينانس لا تان مو يامر با وايي لا تاخ نيوم نييب كين واخو جي موي تاب دي واخ وارو نغينا خامن داي فن دوما وارونا واخ باسكو واخون لا تاخ مو واخ واي بي مو واخي افيمي تونتو فن لي سونكو دغ داغاي فن لي سونكو دغ كون di wax ne haute cour bi maa ngi wax ñëpp buñ joxe ngallaawaay aw lamin di bàyyi bopp wala buñ joxe bopp di bàyyi lamin ndax ñoo ànd euh, assemblée bii di am la di seet na ñëpp taxaw te wax dëgg yàlla démb sama góor gu jàmbaar gu jàmbaar lay sànn wallaahi gu jàmbaar barki démb talaata dane ma dama dem yàgg na ma ko fan yàlla ne ma carrément bi ñu joxee dañoo daax élection rek ci la ma woo ne man damay def ay wote ji ndeysaan Sénégal ay wote ji wallaahi dem na talaata yi passé ne ma dem pour wote jógee ba Italie dëgg bi huit cent euro sept cent euro pour dem vote ji kon loolu li muy tekki rek mooy nun ñu nekk Sénégal te wallahi yàlla xam na ne kookee ka def loolu yi mi ngi ci dëkk bi xiiful marul amul problème waaye pour Sénégal gu jëkk rek moo ko tax mu def loolu di woo ñëpp ci ñu taxaw le 17 incha allahu ñu taxaw ci jële fi li fi nekk daal di fexe ba maanaam jëlee woon nañ ko waaye gën a dëggal mooy ensemble ñu fexe ba gagné lu bon bon cent su ko defee lañ bëgg incha allah daañu ko def lii rek laa di woon di wax ne waxoon naa ne problème Sénégal mooy Macky Sall bu fi jógee Sénégal jag te incha allah Sénégal tàmbali na jag te gëm nañ ne jag lay doon goo xam ne dootu jagati te loolu mooy li am solo ñu ngi leen di ziar